essence ñun dañoo sonn si dëkk bi bàyyi yàlla essence yi yaa ngi nii kenn xëyul continue xam nga toog bi ne xam ah da ngay kenn du ko wax comprendre nga barki yàlla c'est pas normal quoi. ñu ñu job quoi job ñu ngi fi am bagaay mais xamul yelleef quoi. jikko yi ñoo yàqu. l'ancien régime jikko bu ñuy indil moom mooy dox ci dëkk bi ba tey te loolu lañu bëggatul maanaam jikko yi ñii ku nekk xamatul lan moo la war ak lu warut tout le monde croit que bon li def c'est juste c'est ce qui n'est pas normal. gaa dañuy yor paan seen kër yi di wax kooku jaamul. Mm-hmm. loxo moom jaaduwul moom. maanaam yor paan seen kër. waaw ma saa seetal rek waxin la rek dégg-dégg la laaj. Ah, maanaam waaw mooy lan. dërëm dafa taree saa yi nii bàyyi. Uh-huh. barke sëriñ Baam. gis nga xol yi bu ñu nekk benn dara du baax sëñ bi ñun fii ñi daal suñu dëkk bi ñun ñoo ko moom suñu Sénégal amul kenn kuñ ko bokkat te waa waane gis nañu jafe-jafe fi nekk ñëpp ngi jooy jafe-jafe yi di ko dalee ci dund bi ba ci transport bi ba ci courant bi ak ndox mi lepp seer na yaa ngi dégg lépp na quoi te loolu yep c'est pas normal waaye ñun gouvernement bi luñ koy ñaan dal moy lenn moy dal nañu jappalé ci mbiru courant bi mu wañi taxé waaw mooy ndox mi courant bi ceeb bi ak dulun bi nako wañi presque borom kër yi dé nañu tas nañu même transport bi sax gaay ñi xey sax transport bi sax jafé jafé la loolu tamit nañ ko jéem tamit gestu ak ñu dëkk ci grève amana metti na quoi dund bi serno tamit ñu bëgg nañ ñu tamit mën nañu wax ay xale lañ tamit mën nañu wax ay tamit pour l'instant ay père de famille ñoo war a ñu dimbali suñu waajur yi gis gouvernement lu mu fi waxoon yoonu yokkute waaye yoonu mu nañu wax yoonu yokkute dañ ñu ko junjoon avant tout mooy su toogee day yokku rek makee ngi nii la wax laay wadd lay wadd mii waaye pour l'instant ma sama gis gi laay wadd waaw ah moo gën téeméeri makki du mu fi def gis naa ni insalubrité bi comme lu demee ni mbalit mi ak lu demee ni jaaduwul quoi te dëkk bi Sénégal lu ko rafetal rek loolu moo ñu intéressé. kon nu mu gën a nuñ ko mën a gën a rafetale rek moo tax état bi war na ci jël ay propre responsabilité pour mën a essayer def ay campagne de sensibilisation wala yu demee noonu pour euh, gën a euh, waxtaan ak nit ñi ci ci setaay bi quoi parce que set moom ci jaamu yàlla la bokk. tooguñu jéem a liggéey leneen xanaa nekk ci kaw kanamu ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. nek ci seen kaw di len jema yakal di len xoxatal ak tital tiital loolu lañ wara bayyi bayyi ki nga xamni mo jitu mu liggey li muy liggey bu fekke ne dem na ba nga xamni ah, ah, mandam jeexna te liggeyul ni ñu defoon moromam lañ koy def li rek moy am solo mais nañ bayyi wax ji wa loolu moy li li ñu ay xalé ndaw lañ ñu wara liggey deug wi te teensaa deug wi amul liggey barki yalla liggey bu normal amul te ñu fuñ ton ñu ñaaw liggey bu mun a ci ñaar ñaari waajur barki yalla mais mais dëkk bi loolu moo normal woon ak dem rek comme daan sama benn pa pa bu jige quoi côté keur Massar ñu agresser ko nang ci mom 150 té lolu ci suñu suñu la doon jëm quoi moy ration quoi lolu xam nga normalul waaw ñu nag ci lolu rek lañuy jéema wax ñu japp lañu ci quoi ah. ngi ni ministre de la culture du cadre vie et waaw man fofu la liggé ci mbalij bi la né dama dé ñëpp xam nañu mbalij dafa xasaw xun waaw te duma naan mew ma ngi ni awmako prime bi fay ñu ma mais nak c'est pas normal dëgg loolu dëgg kon nag le normal lii nga xam ne mooy normal bi nañ ko def ci réew mi xale yaa ngi toog liggéeyuñu c'est pas normal waaw agresseurs yi ñu ngi agressé c'est normal nañ leen jox ñu joob sénégalais moo mel noonu quoi dañoo mën a saboté quoi te fi réew mi nii fekk gars yi ñu ngi saboté quoi du dem man li ma ci xam daal mooy xam rek boo bëggee tekki da ngay gëm sa bopp bul faale bul lijjanti quoi yàlla na la ko quoi fii day taa chaque jour day taa te normalul comprendre nga ah? dañoo war a mën a xoolal xoolaat xam nga mooy lool noonu barke yàlla. waaw gis nga. c'est pas normal waaw c'est pas normal kenn du ko wax. Uh-huh. gis nga waaw instant la ñuy wax xoolal xoolal jeunes yi rek instant kenn xëyul kenn gontul dañuy wër taxawaal wala ñu wër xam waaw mooy loolu business utuñu liggéeyante ji xam nañ ko si banlieue bokk voilà ah c'est pas normal du lu ñuy wax. éducation xale yi léegi gëddaawoon bi ñuy sol kii ñuy sol mais c'est loolu baaxul góor benn boo takkul sa ceinture doo yor kër. kër ceinture moo yor kër mais boo bàyyi sa tubéy di wodd kañ ngay yor sa kër jamais de la vie kon nag comportement yi nañ ko changé c'est pas normal. c'est pas normal. c'est pas normal. c'est pas normal quoi. c'est pas normal.